mbokki yi seen bind bi ngeen di topp boobaak legi moy tuhfatul mutadarrin tay ñu nekk ci fukkelu tomb bi ak ñaar xam ngeen ne tomb be wessu mo nekkon fukkel bi ak ben tay ñu wara nekk ci fukkelu tomb bi ak ñaar ta mo wara nekk jeexal bi incha allahu eh, ñu delu ci wa di leen ko andil ci kàttanul yalla ak dimbalam be jall seigne touba mi ngi doon ñaan ci barkeb gaa yu baax yooyu nee na maa ngi ci yaakaar suñu borom nga defal ma ci kaaraange defal ma ci ngërëmal yàlla defal ma ci texe àdduna ak àllaaxira waaye dimbale ma ci musal ma ci mbëgalum bàmmeel ak laaju bàmmeel ak mettitu sukuraat ak deeg ak xisaab ak yooyu yëpp rek muy ñaan suñu borom yàlla nag ñu ci musal te yàlla nag ñu defal am mbégte àdduna ak àllaaxira fa fa ñuy faatoo ak bu ñu dekkee ba ba ñu dugg àjjana incha na yàlla nangu ñaan yépp nangu na ko sax kon ñoo yemoon ci wa bil busharati wa bis sururi wa fi nusuri war a tàmbale ci wa salliyan wa salliman ala nabi wa alihi man wa yàlla na nga dolli teraanga wa salliman te yàlla na nga dolli wóolu ala nabi ca kañu solo mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa alihi ak ci waa këram ña maxa sihaabi maxa sihaabi ànd ak sahaaba ya an nuju bi ña di ay biddiw ña di ay biddiw ci ay leer ña di ci mën a gindiku ci ñoom waaye an nuju bi ña di ay tànneef mu ne ginnaaw loolu nag maa ngi lay maa ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sëlmal ci moom ni nga ni nga ko nga ko digle woon ci alquran waye ma ngi julli ci wa kërëm ak sahaba mi nga xamne ya yaa leen tànn yaa leen tànnal sa bopp mu ne ko waxfir li waalidayya waxfir li jami' ahli wa jumlati sihaabi yaa samii waxfir yàlla na nga jéggal li walidayya ñeel sama yaari waajur waxfir ta yàlla na nga jéggal li jamiihi ahli sama mboolem sama ñoñ mboolem sama ñoñ sama ñooñ nag yaatu na lool mën naa nekk mboolem ay taalibeem li wér moom mooy jublu da wax ay waa këram deret mooy mboolem ñi nga xam ñooy ay taalibeem wala boog nga ne mboolem mooy jullit ñi ndax moom kat moo njaboote jullit ñëpp yàlla na nga jéggal sama yaari waajur jéggal samay ñooñ ñëpp wa jumlati sihaabi yi ah taalibe taalibe mujj nañ ñëw sax ak mboolem sama ay taalibe kon yaa samiya yow yàlla mi aji dégg yàlla nag ma jéggal jéggal sama yaari waajur jéggal samay taalibe waaye jéggal sama ñooñ kon nag amul benn sikk sàkk ne nun ñëpp yàlla jéggal nanu loolu amul benn werante incha allah nanu fexe rek ba nekk gi ñu nekk ak taalibe wér loolu nag li koy indi mooy fexe ba lam nu digaloon ñu di ca nekk rek lam ñu digaloon ñu di ca nekk rek lépp loo gis ñu ne lii sëñ Tuubaa ko bind digal ko ab taalibeem kooku moom lu wóor la amul werante waaye bu fekkee ne nag da ngay topp rek li ñuy nettali eh, nit ñi di wax rek nangam nangam te wax yooyu wóoru la ndax wér na wala wérut nga topp ca rek te seigne touba sëñ wax te mu wer lol nga bëkk fe bayyi nak koku nax sa bop la yalla nu ci yalla musal waxfir li kulli dhi taalluqin biya wa xaqiqan saadati ya rabbiya mu ñaanalaat taalibe yi fofu mu wax fer yalla nga jéggal li kulli dhi taalluqin ñel bépp boroom ak aju bi ci man seigne touba képp ko xamné dafa aju ci man yalla nang ko jéggal kon bo bo tuddé Eh, wax jam waxoon ne wa jumlati sihaay bi mboolem sama ay àndandoo mën naa am mag ña àndoo nag moom ci jamono yi muy way la mën naa am ñoom la ci jublu moom moo xam lam ci jublu nag waaye bu ne li kulli zi taxaluqin mooy képp ko aju ci moom ba àddunay tukki kon boobu moo gën a yaatu yàlla na nga jéggal képp koo xam ne dafa aju ci man sëñ Touba yàlla noonu yàlla nangul sunu aju ci sëriñ Touba mbokk yi <clears throat> yàlla na nu ko sëñ Touba nangul te làqal nu ko fu yàq eggut dund ci faatu ci dekk wa xaqiqan saadati rabbi yaa te yàlla na nga dëggal yàlla na nga wéral saadati samak texe maak samay taalibe yaa rabbi yow sama borom yàlla na nga jéggal samay taalibe te sunuk texe nga garanti ko yow yàlla mi nga xam ne yaanu boole bind yaanu moon waltuf bi naa wa qawwi naa wa kun lanaa wa hab lanaa xusnal xitaama rabbana waltuf bi naa yàlla nag ñu ñeewant yàlla nag ñu ñeewant ñeewant koo ko def doo ko def lu metti koo ñeewant doo ko def dara lu metti ndax danga nga koy ñeewant waxawi naa yàlla nag ñu jubbanti bu dee dañoo jaar ci aw yoon wu xaw a doy waar yàlla nag ñu tegaat ca yoon wa yàlla nag ñu jubbanti wa kun lanaa yàlla na nga farak mooy yàlla na nga nekk ñeel ñu ma nga farak noonu rek nekk sunu méngoo waxab la naa te yàlla nag nu may xosnal xitaama eh, rafetug mujj ga rabbanaa yow yàlla mi suma mi sunu borom rafetug mujj suñ tuwaa fonk na lool rafetug mujj rafetu mujj mooy lépp nit dana góor góorlu ci lu baax sonn ca lool mujj ga xaw a doy waar nit dana tàmbali ñu naan diw de ni mu bone nangam nangam yàlla dogal mu mujj nekk ku baax te boo xoolee saxaaba yi ma doon jàngale rek saxaaba yi sëñ bi doon jàngale boo leen xoolee rek ku mel ne Seydina Omar nga xam ne daa nekkoon ceddo eh, julli ñi mu leen def ay jëf ja gën a bon lu ne mu def ko gis nga mu tuub ba bokk ci ñi gën ci jullit ñi boo xoolee ku melne ne Khalid ibnul Walid mom yoron jangale nga xamne xare Uhud motax bañu gane jullit ñi ci moko sabab motax bañu gane jullit ñi ñu ray ci ñu bare bare bare gis goko ko na doon ko baax lool tubaarkàlla euh, la deme kon mujju gu rafet rek am solo yalla na ko defal ñun nak yalla nanu yalla defal mujju gu ñeel ben gu rafet ak mujju gu rafet ñëpp rek mu boole ñoko ci barke serigne touba wasalliyan yalla nga euh dolli Eh, yal na nga dollee teral ala nabi ca kañu solo mu yonent bi wasallimi ta nga dolli ko wóolu waqdi ta nga faj bi bihi ci barkeem moom yonent bi xaajata kulli muslimi aaja yi bépp jullit yàlla maa ngi julli ci yonent bi sëñ Tuubaa julli ci bi la ko tàmbalee woon ci alhamdulillahi wasalla abada julli ci yonent bi la ko tëjawaat mu ne maa ngi julli tey sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey ñaan ci barkeem yow yàlla yàlla na nga faj aajo yi mboolem julli ñëpp yàlla na suñ borom faj suñu ajo ñun ñëpp mbokk yi nangul nu xasiida gi ñu doon jàngat jéggal nu mboolem luñ ci def ci njuumte ndax day li ñu xam daa bariwut dégg nu arab dégg nu naxu dañuy jéem rek euh, sellal sunu yéene te ñun ñëpp mu fay ñu yoolu kuy jéem a xeeñtu dara ci lu baax ci mbindum Sëriñ Tuubaa euh, ñu woon a wax li sëñ bi jublu ci xasiida gi dee dét loolu de mën nu ko xam waaye dañ doon jéem a leeral rek baati araab yi ci kaw rek liñ ci mën a dégg ngir taalibe bu koy jàng mu xam li xasida gi mu xam ci lenn rek loo xam dana tax mu gën koo bëgg dana tax mu gën koo sopp xasida gi nag xasida gu tedd la goo xam ne wax nañ ne baax na lool ci ku mel ne man nga xam ne daa dënk di def di def ay ñaawteef rek di def ay bakkaar te léeg-léeg nga rëcc ko la nga defaat ay bakkaar nga xam daal da nga bëgg suñu borom jubal la suñ da nga bëgg xasida gi tërbiye la xasida gi man na ko lool waaye xasida yépp ka man nag su ko defee loolu ñu naan xasida gi nangam xasida gi boo ko jàngee nangam loolu daanaka taxut mu bari solo na xasida yëpp a yem sëñ Tuubaa moo ko wax nee na kuy jàng benn ci sama xasida yi rawatina yi ma def ginnaaw géej gi loo ci bëgg loo ci bëgg rek yéene ko ci kon nag yenn yi day indi ay wuute rek moo tax eh, jamono ji xaw a doy waar lool ndax nit ñi dañoo ëppal koo ci ne nangam lay jariñ rek day daal di jël loola ëllëgee kenn nga ne ko nangam bu baax dañuy dem dañuy dem bay tëkkalante diggante xasida yi kii naan waaw jaale ba ti muraaxi moo ëpp doole ci xasida yi ku koy jàng nangam kii naan déedéet ma faa yor basira kii naan taysiir ma ne ko nu ngeen def ak euh, euh, maanaam ñoom aljumnu aljumnu yu yusuru nu ngeen def ak saana ilaahi nu ngeen def ak yooyu nga xam ne li ci nekk ci njariñ nu ngeen def loolu mu naan xasidati faaxat xasaa idal kiraam moo kawe xasida yëpp te yooyu yëpp juróom benn bayit la wala yu mel noonu moo tax xasida gi jàng ko rek te ko te yàlla tax bul ci xool naan xasida gi dama bëgg nga wax ma lu muy jariñ so ko defee buñ eh, buñ la ci waxul lu bari nga bañ ko jang lool da mel yalla taxatut nañuy jang xaside gi ngir jaamu ci yalla ngir julli ci yoronte bi waye ngir eh, fatti suñu aajo waye ngir liggéeyal ci serigne touba kon mbokk li mo nekkon sen seen ak tuxfatul mutadarrihin seen ndongal ali aliyun badar njaay ngeen ci doon ngeen ci doon andal eh, yalla dogal tay di fukki fan ak ak ci wéru koor wi mu nekk dimanche 11 juin 2017 euh, yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp ku ko dégg rek nga ñaanal ndongo li ko doon def mu am saadatu daaray ni am taalibe gu nu nangu ci saahir ak ci baatin waaye suñ borom defal ko jàmm ak xéewal yokk xam-xamam ak wéram guddal ak fanam te liggéey loo ko ci diina ci ci biir toolub Sëriñ Tuubaa yàlla noonu ko yàlla may ñun ñëpp in uridu ila al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unibu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa